mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci benn xew-xew bu doy waar bu doxoon ci diggante benn xale bu jegeen bu doon jaay boppam ak benn waay boo xamante ni def ko jël seq moom ba pare lànk ni lu ko fay xaalisam mbir yi nag mu ngi xewee ca Parcelles Assainies bu ñu sukkandikoo ci journal témoin bi nga xamante ni moo joxe information bi boobe xew-xew nag euh, barki démb la xew ci guddi gi nan la histoire bi demee dëgg-dëgg nag waa ji ak ndaw si ñu ngi daje ci benn baar ginnaaw rek bi nga xamante xamante ni discuter nañ ci la waa ni ko dama bëgg ñu dem sama kër nga passé fa laa ndaw si ni ko vingt cinq mille francs nga may jox ñu daal di ànd daal di d'accord dem ci kër waa ji waaye nag ginnaaw bi nga xamante ni waa ji def na li muy def ndaw si ba ndaw si fanaan ci biir këram bi mu yeewoo nag la taxaw ni du ko fay dërëmam ca noonee nag ca la ko ndaw si daal di tendance rek xeex ak moom coow la jokk voisin yi yeewu ñëw jàpp ci laajte lan moo xew ca noonee nag ci la ndaw si doon jaay boppam daal di expliquer histoire bi ni mu demee Walja nag la mu tontu moo di mësu ko wax ni vingt cinq mille francs la koy fay ndax fii réew mi toll amul vingt cinq mille yoo xamante ni dina ko joxub caga la ko jàppoon nag bam ni ndaw si vingt cinq mille la koy fay moo di dafa mandi woon ba xamut fu mu nekk looloo tax mo wax ko sombo bi le ginnaaw coow li jàppal ak bàyyil ci la benn waaye rek daal di woo police mu nekk ab dénonciation anonyme ginnaaw coup de téléphone bi ci la waa police daal di ñëw agsi sur les ndaw si nag bi ñu agsee ci kanamu enquêteurs yi expliqué na num demee waaye nag waa ji nga xamante ni moo ko jëloon ba pare lànk ni di ko fay bi mu accès ca police moom dafa weddi li nga xamante ni moom la njëkkoon a wax moom nag la mu xamle ca kanamu enquêteurs yi moo di ñaari daanu lañ waxante woon loolee nag ndaw si bi mu demee ba si biir daf koo bañ moo tax nag mu yeew mu ni ko fay vingt cinq mille francs waaye beneen mbir boo xamante ni bu xoromu la bu mu wax moom waa ji nee na ndaw si li nga xamante ni moo di vaccin maanaam awram dafa xeeñ moo tax nag mu lank ni du ko fay xaalis jamono ji nag ñoom ñaar ñëpp yëpp ñu ngi leen placé ci ab garde à vue nag la bët yam lii mooy kaawteef dëgg-dëgg ci Sénégal chaque jour ak bu bees bi fi xew jërë ngeen jëf fii la ñuy yam a yéen